sama mbokkum taalibe maa ngi lay ziar sama doom ziar naa la maa ngi nuyu ñi taxaw fii ñëpp di sant sëñ Tuubaa rek mbégte bi nga xamante ni moom la am si diggu safar ak màggal Touba nan koy waajee xamante ni ay taalibe ngeen di taalibe si Habib xam si yoonu Serigne Touba bi waaw ni ko xalif général kulli murit waxe rek noonu lañ koy waajale ndax murit ndigal rek la am te que sunu kilifa sunu xalifa wax na rek kon jeex na lu mu wax rek loolu la ñuy euh, mooy yar teggin jàng xasaayit jàng alquran berneel gan Euh, distance bi nu wax ak yëpp ñu def ko nangu ko ànd ak zel yeeg yëpp ànd ak yar ak teggin noonu nga defee ci safar gi bu ñu waaj paree ci safar gi daal di jubale dëkk xaadim rasul muy Touba nan ko waxee rek dañ koy defee foofu tamit ànd ak yar teggin fu nu wax ñu yem yem fa ndax murit ndigal rek lay wéy boo déggee ndigal rek dem ca kanam. waaw mais tey gis nañu Balla Gaye chaque at mi ngi def safar. waaw di ay nag jox ñeeru doole ak dëkkandoo yi tey jàngat boobu ban jàngat ci am. waaw loolu mooy taalibe Sëñ Tuubaa rek dañuy sant rek. xam nga am na ñi nga xam ne yoroon lépp lool te defuñu ko. waaye sëñ Tuubaa mooy tànn ay nitam di leen jagleel dara waaw kon nag loolu ab cant la ci moom ab cant la ndax yaakaar naa ni suñu borom lu mu gën a bëgg mooy ngay teral doomu aadama kon loolu dañ ko xëy si ñaanal ñaanal ci mbooloo mu jullit ak képp ki nga xam ne taalibe sëñ Tuubaa ku dul taalibe sëñ Tuubaa ndax Sénégal tarix yëpp ñoo bokk ndey ak baay ku ci am sa bés bu ne ñu bàyyi bés boobu jàppale si sa bés kon loolu mooy Sénégal te Sénégal loolu nañu xam li ma ciy wax rek mooy nañu kër diine yi nañu gën a jàppante euh, gën a jàppante bu baax ndax dëkk bi tool na fi nga xam ne dafa doy waar il faut kilifa yi di waxtaan ak taalibe yi di leen digal ñuy jàng alxuraan te yéenente jàmm te raxas xol yi euh, muy yow muy keneen muy man li nga yéene sa bopp boo ko yéenee sa morom rek dem mais boo nee sa moroom suñu borom jox na ko lii nga ne ko kii warulu am lii kon yow xëccoo kooku pour suñu borom ngay xëccool te àdduna amul solo xam man lan moom fundal lan mooma góndi si àdduna mooy nit ku ma gën a bëgg Serigne Touba waaw amul dara li nga xam ne rëy na ma bët ndax man pour man dama wax ne suñu borom teral na ma Serigne Touba teral na ma ndax tey foo taxaw rek bu nu waxee mbër ñu ne ah Balla Beye mu sëñ Mourou Habib Mbacke Balla Beye mu sëñ Mourou Habib Mbacke loolu day na sant yàlla yente suñ tubaab loolu moo ma gënal ay milliards dem ba nu ràññeele fa nga ne te nit ku ne ci li nga nekk war na la sa ràññee lii ngeen nekk nii yor ko war na leen sa ràññee kon nag ñun loolu nañuy wax rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di wax nag borom oto yi nanu daw nànk bañ a yàkkamti Ila Touba bi nañ ci def nànk xam ni ay nit nañu yëpp na ñuy dal kenn ku ne luy sa wërsëg ngay lekk. na ñuy déglu ndigalu xalifa bi. na nu déglu ndigalu porte parole. na ñu déglu nii la commission bu nekk foofu ca Touba. nañ leen déglu ànd ak yar ak teggin. ndax sëñ Touba lu mu am yëpp. ci yar ak teggin ak am fit la ko amee. ndax metti woon na lool. waaye moom dafa xuus jàll. te bu mu jàllee it mënoon naa toroxal ay noonam. te defu ko. da leen jéggal kon ñun murit na ñuy jéggale di muñ. di yaatal. waaw ndax ñun ñoo woote. na nañu yaatal kër yi. yaatal mbedd mi yaatal néeg yi yaatal berne yi. te ñun Touba loolu ñu xam. waaw ci barke Sëñ Touba. xam a àdduna euh, ci par rapport ak li nga wax ci chauffeur bi ak ci paas beeg yooyu. waaw comme nu ma ko waxee rek. chauffeur yi yaru ñuy yokk ay paas Touba wala ñuy yokk leneen ak leneen. te xam naa ne sax loolu moom chauffeur yi duñ ko def ndaxte chauffeur yi ay taalibe nañu te bëgg nañu sëñ Tuubaa lool. corona bi nag na mbir la bu suñ borom wàccee ci partout dans le monde ñëpp xam ne lu wér la lu am la lu dëggu la kon dañu moytu rek waxuma la corona sax mais nit fu nga toll da nga war di set. raxas say loxo parce que même bu dul corona sax nit war na ko jël parce que poussière beeg yooyu yëpp boo xoolee ay dëkk yu bëri dañuy jël ay masque di ko takk même bu dul corona sax c'est très important nanu déglu ni ñu leen wax déglu tamit docteur yi lu ñuy wax parce que xam nga man mii li ma xam. bokkul ak docteur yow li nga xam bokkul ak lu docteur bi xam xam nga docteur bi tey boo ko ñëwoon jox micro bi xamu ci dara. boo nekkoon kii kat sama bopp day métti am na lu mu lay bindal mais man boo ma nee sama bopp day métti lan laa lay bindal xanaa aw kurpañ laa lay <laughs> ma ko ni ma xam laa xam kon boog nanu déglu Sénégal nanu déglu kilifa yi déglu kilifa diine yi te boo xoolee Sénégal muy tiijaan bi bu murit bi xew da ngay tiijaan bi jënd ay nagam yóbbu Touba. murit bi bu mu tiijaan bi xewlee wala laayeen wala ñaseen bi wala xaadir bi ñu jënd yóbbu te loolu mooy Sénégal damaa bëgg ñu jéggalante ci màggal gii maa ngi ñaan senegal gépp kenn ku nekk na jéggal sa morom na ñëw nuyu ko na ko jéggal ma ndaxte du dara xol yi la rek bu xol yi yaatoo rek suñu borom indi xéwal li sunu góor gi sunu maam bu baax bi maam Abdou Aziz da baax yàlla na suñu borom yokk leeram lu mu doon wax chaque jour nag waaw mag ñooñu nag la ñuy wax ne nañ koy toog nañu déglu kilifa yi kër boo ci nekkee boo amul kilifa du dem te kilifa mooy lépp kon boog nan doon as ndongo te xam ne as ndongo sëñ Tuubaa noonu ñu ngi ñaan ci barke Xaadim Rasuul mi nga xam ne moom nañu yaakaar tey ëllëg mu dimbali ñu dimbali mbooloo mu jullit ba réew mi yëpp am jàmm añ ci am jàmm ndax yaakaar nañ sëñ Tuubaa lu raw loolu mën na ko ndax boo xoolee tey jii ba nu tuddee màggal gi ba léegi xam nga ne kow bi ñu ngi koy mbëkk muy rëkk de ah balaa màggal gi xam naa ne léegi ñu ne ko tës mu dem yoonam kon boog yàlla na dem ci barke Xaadim Rasul di ñaanal sama sëriñ Mouhamadul Habib Mbacke dal na suñu borom yokk leeram ah xalifa bi mu yenu yàlla na woyof tol ci moom ak waaru daa rahmaan yëpp ndax man ku ma xam xam ne kër sëñ Mourabbi Mbacke laa bokk nëbbatuwuma ci làqatuwuma ci moom laay tiitaroo sëñ Mourabbi Mbacke laay ndamoo ndax ganna yéen tamit Sëñ Tuubaa lu ma am ci moom moo tax bëgg na ma fonk na ma yëg na ma di ñaanal Omar Sakho nag yàlla na ko yàlla yokk may ko xewal dolli ko sutura defal ko jam defal ko njabootam defal ko mbooloo mu jullit ak képp ku fi ku teewul ndax nit ñi bu doon bëgg ñëw mais xëy na yitte yeeg yooyu waaw ñu ñaanal Sénégal ñëpp yàlla na yàlla defal jàmm defal leen ko yéen it seen liggéey bii ngeen def yàlla na leen si Sëriñ Tuubaa defal xewal na leen jàmm yàlla ci barki màggal gi ci barki safar gi yàlla ubbi xéwal yi mu murid yéeg tiijaan yéeg ñëpp bokk ndey bokk baay ñu liggéey Sénégal jëm kanam ñaanal njiitu réew mi ñëpp waaw ndax ne dëkk kër boo ci ñëwee boo bëggee jàmm am da ngay ñaanal borom kër gi kon nag fu mu toll ni sunu borom kër mooy président Macky Sall di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla defal sutura defal ko xewal defal ko jàmm ci barke Sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf